mën ngay dox ba ay ay bandi ñu lay bugg ñu bugg laa lay fekk nga suñ la goree du bu loolu yëpp xam nga ne su baax na bisimilah kii moom mën a mën xar-xaal la guru duudu yow eh, kii eh, ñu la jëlle yow eh, am na benn femme boo xamante ne nii dafa defaroon jëkkëram xaal xamul woon xaal day am ay doom ay doom waaw yow sa soxna noo bëgg mu mel ak yow ndax mës nga am soxna wala ndax mës am nga am nga gel. Hmm. léegi yow sa sa sa gel ñaati at ngeen def. ma xool def nañ normalement trois ans. trois ans. waaw looy xaar takku ko. man ah, damay xaar damay dama koy seetlu chaque jour daal maa ngi koy seetlu ndaxte nit bay wut jabar bul ko wutal sa bopp. wutal ko ñi nga dëkkal ak sa xarit yeeg ak say mbokk yi ndax dina mën a dundoo ak ñoom ndax soo amee jabar it te mu mën mu yem ci yow kese loolu du jabar te gérer rek mënul tax mu doon sa jabar nga seetlu ko su la bëggee te bëggul sa mbokk yi loolu man daal loolu doxul pour man. seen cosaan jabar bi du yow yaa koy takk yow rek. déedéet nan lay demee. soo gisee bëgg di dem ci sa waay ci waajur. nga ne ko ah man de gis naa jabar mu ne la fu mu dëkk nga wax ko lan mooy cosaanam lan mooy xeetam nga wax su su ngeen mënee an xam nañ suñ mën am an xam nañ léegi suñ su ngeen mënee an ñu kompaloo ñëw ñaan si ko ci papaam comme ñu ñëw ñaan ko papaam ni la may naa leen ba mayuma leen ñu ne gën suñu foofu la ñuy jàppee bi nga ñëw takk def li ngay def mu sëy si yow ki ngay àndal nii trois ans mooy nekk sa soxna wala du nekk sa soxna. non foofu moom du nekk sama soxna nag. ah lu tax. non daa am ci li mu nekk ci man daa am ci li mu nekk mënuñoo xaarante man dama yàkkamti tourné ne yàkkamte wut. ah kon yow fooyee ko rek moo la tax a jóg da koy fooyee fi mu ne nii. man non du fay rek ndaa naa xam ne daal am naa daal comme ni sama morom di amee rek. ndax dama ñu bës ñoo sax dara moom. déet wallaay wallaay ñetti at ñetti at. ah yow xale bu góor ñu am ñaa ngi yaa ngi si ñaati at. man normalement ay 23 ans 24 ans. ah, ah loo expliqué ñu waaye ñu comprendre. non non non. non man de koo <laughs> eh, ah eh, eh, jaga nee de. ah loolu loolu kay xanaa du góor laaj ko. ah jaga gëmu na ndaxte nit yi bokkuñu ko waaw loolu dëgg la xam nit yi bokkuñu. Ah. man damay def pour souvenir daal suñu àndee daal ma ñu xam ne kay moo may bëggal ndax suma duggee fu ma war a dugg ba am lu xa feeñ to mënuma kaa ki loolu baaxul ci man quoi moo tax man daal soo ko woon sax wax ko dina la wax ne kooku lu mu wax dëgg la saxuñu dara. gis ñoo sax te bëgg na ma ba bëggal yem may man non su ko yàlla defee mën naa am daa fooguma hey baax le jan ano xene